alhamdulillahi wa sallallahu ala habibihi wa mustafaahu alfatixi alxaatimi ma alaahu wal aali wa saxbi wa man walaahu xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim ñu fas yéene àggale ak yéen pàcc bu mujj ci qasida ju rafet jile maam cheikh sayid alxaaj malik radiallahu tabaraka wa taala an bind tënk ci siiratu maulana cheikh alxatmi alkatmi sayidi ahmed tijaani radiallahu anhu mu mel ni bésu tey bii di fukki fan ak ñett ci safar am nañu ko taarixal ci la Mawlana Cheikh radiyallahu tabaraka wa taala anhu ganewoon adduna fële ca ayn madi ci junni ak téeméer ak juróom fukk gannaaw gàddaayu Mawlana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi nee na wa kaana laa yuxibu limtiyaaza min muxassanin wala muqabbaxin zukin wa kaana laa yuxibu limtiyaaza min muxassanin wala muqabbaxin zukin wa kaana laa yuxibu bëgguloon moom mawlana tijaani ràññeeku min muxassanin moo xam ci luñ rafetal la wala muqabbaxin du caagan lu ñu ñaawal zukkin zukkin xameef na loolu waaw wala zukkin loolu xameef na ko maanaa Cheikhna Tijaani radiyallahu anhu foo ko fekk yére yu set wicc lay sol colom dafa set waaye nag du bëgg a ràññeeku ci kaw ñi mu nekkal ba nga xam ne boo gisee yëreem yi xam ne kële mooy sëriñ bi ndax yére ya dafa gën a bakkane wala dafa gën a buure déedéet dana sol yére yu rafet waaye la muy sol moog ñamu nekkal ñooy niroole ndax Cheikh Tidiane ku nekk ci këram lu rafet ngay sol lu rafet nga ngay yore lu baax ngay lekk lu baax nga naan wala muqabahin du caage ne it muy jël ay yére yoo xam ne boo leen séenee rek ne ah, xam naa ne dëddu àdduna tax mu sol yére yu bon yi la mel woon noonu moom Cheikh na mu mel rek la mel mat sëkk waaw mat sëkk waaw baxroom dégg nga waaye jéerim dégg demeewut géejam qaddasa allahu sirrahu mu mel ni dafa leerul ci yow mu ne yalbasu thawban mutawassitan bima yaqiihi bardan xarratan fal taalama yalbasu moom fa daa sol thawban yére mutawassitan bay aji digg doomu bi ma ci la nga xam ne yaqiihi dana fegal ko bardan sedd su fekkee jamono sedd la xaratan tàngaay su fekkee jamono tàngaay la fal taalama xamal loolu waaw maanaa ku civilisé la ndax yére bu nekk jamono bu nekk dafa am yéreem waaw waaye jamono seddaay nga sol yére boo xam ne ah kooku kenn mënu ko dégg walla tàngaay nga sol lu diis loo xam ne boo toll yaa ngi ñaq loolu wala yura fi daarihi yartakibu amran siwa alladi nabiyu yadhabu wala yura mosuñoo ji cheikh tidiane radiallahu anhu fi daari ci këram yartakibu muy toggoo amran mbir siwa alladi lu dul mbir moo xam ne annabiyu sallallahu alayhi lay demee loo gis mu def rek xamal ne nii la yonantu daa defee wala nga ne yurtakabu amran si walladi nabiyu yadhabu mooy lépp luñ daan def ci kër yonantu rek xamal ne moom lañ daa def ci kër Cheikh Tidiane te xam nga kër yonantu eh, kaddu yàlla rek a fa dox moo tax kër Cheikh Tidiane it kaddu yàlla rek a fa dox yuhibbu ala beyti shafiil wara salla alayhi llahu xaaliqul bara yuhibbu ala bayti shafii nabi ala bayti shafii lwara yuhibbu dafa bëgg moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu ala bayti shafii lwara waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy aji ràmmu mbindeefi sallallahu alayhi llahu yal na yàlla julli ci moom yàlla mi nga xam ne xaaliqul bara moo bind ñëpp moo bind mbindeef yëpp waaw bokkam ci aalul bayti terewut mu fonk leen fonk goo xam ne ñi nga xam ne gis nañ ne aalu baytee leen kawe sax fonke leen noonu waaw bu leen gisee ñuy ñëw rek mu jóg ngir yàlla ak seen maam waaw sallallahu alayhi wa mu jàngal ñu moom Cheikh Tidiane ne it bëgg leen du loo xam ne lu lay neex rek la waaye luy wane ne ngëm ngëm mi ngi ci yow moo tax dafa war lu nécessaire la wa waajibun mahabatu nabii wa alihi lmuhadabi l ali wa waajibun aji war la mahabatu nabi bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ak ñooñam almuhadabi yonent bi nga xam ne mooy kuñ sellal ki sellal ñooñam al ali yi yonent bu kawe bi te ñooñam it kawe ca kawem ga alayhi salaatu wassalaam waaw waaw ku ku leen fonk la wa daa leen wax ne kuy donn yonantu yéen ca gën a yey moo tax bu kenn gis ci lu seen maam ne utoon sallallahu alayhi wa kathiru ra'fatin li kulli muslimi wa yata'allamu li di taallumi kathiru ra'fati ku bëri ñeewante la ku bëri yërmande la li kulli ñeel bépp jullit wa yataallamu li di taallumi ku daan méttitlu la ñeel boromu méttitlu ku am méttit mu seddoo koog yow mulaatifan li kulli dil xaajaati kama yuwaasi kulla dil faqaati mulaatifan muy aji wan ñeewante ak yërmande dégg nga ba fajal li kulli di xaajaati kama yuwaasi ni mu daa naka mu daa dimbalee kulli dil faqaati bépp boromuk ñàkk ku am soxla moo ca mën ku ñàkk mu jox la mu am ma shakaahu ahadun min alami illa ictanaa lil alami kenn mosu koo tawatal méttit lu dul mu sonnee mbiram ba mettit wa tàqale ko kooka fala yazaalu dhakiran dawama yad'u lahu llaha walan yasaama fala yazaalu du dañ dhakiran di aji fàttaliku borom mettit borom aajo borom ñàkk fu borom dana fexe ba aajo ba ba ñàkk ga bu boromu aajo ñëwee mu fexe ba aajo ba faju waaye ko am mettit fu mu toll ma ngay sonnee sa mettit wa di la làcce noo def ba yaa ngi tane yad'u lahu llaha di la ñaan di ko ñaanal yàlla walan yasaamata du yokkat waaw boo ko xasee wax feebar boo ko xasee wax jàngor dootu la jàmm feeg wéroo fu mu toll mi ngi laa laaj mi ngi laa ngi laa toppatoo mu ne wa kaana talqa alwajhi dha tabassumi fi wajhi man laqiyahu fi laqami wa kaana nekkoon na moom Mawlana Tijaani talqa alwajhi di aji boyu kanam maanaam kanamam foo ko gis dafay um, ubbeeku kanam gu ubbeeku la amee woon tabassumi di boromuk muñ waa kanam moom ñëkkutoon waaw Cheikh Tidiane ñàngutoon te du ñàngal kanamam du ko ñaawal boo ko séenee rek dégg nga leeraayu kanam ga ngay njëkk a xam waaw gu rafet ga ngay njëkk gis ni mu ko doonee ci maamam da tabasumu mi borom ak muñ fii wajhi man ci kanamu ka nga xam ne laqiyahu daje naag moom moom Mawlana Tijaani fi laqami ci yoon ku mu dajel ci yoon waaw kanam gu rafet ga ngay njëkk a gis ci moom radiallahu taala anhu waaw waaw boo ci jawahir melo yi Mawlana eh, Tijaani radiallahu anhu melo dégg nga Sidi Xaraasi ma ngi ko fay eh, tënk tudd ci dégg nga ñaar fukki melo ak benn waaw dafa ñaar fukki melo ak benn yi nga xam ne ñoom la ñoo tuddee alma melow mel makaarimul na fa tudd al zakaa wal fitna wa shajaatu wa najda dellu ci eh, xel mu ñaw dégg nga dellu ci ak yeewute dellu ci jàmbaar dellu ci njàmbaar waaw dana alxanaan wa shafaqa wa ra'fa wa rahma dellu ci cofeel ak ñeewante ak yërmande dana fa tudd alsabr wal ixtimaal dellu ci muñ ak nango yenu mettit yi jaamu yàlla yi di tege waaw dana ca dana ca tudd attawa wa uluwul himmati waaw dellu ci humilité toroxlu ak teggin gu mat sëkk ak yitte ju kawe ba mu ëpp kaar waaw dana ci tudd al afaaf wa siyaana wal wafaa wal futuwa allati karam wa saxaa ñoŋ ñoŋ ba nga xam ne lépp lu ñàkk fayda doo ko ca dégg waaw fegu ba mu ëpp waaw matal kóllëre diggante moog yàlla ak jaam ñi dégg waaw yore melow eh, tedd nga ak tabe ak jub ak waaw eh, nekk góor waaw nekk góor waaw dana ci tudd alxilmu ana wal afu wal ithaar nga xam ne ñu ngi dellu ci lewet ak jéggale ak intérêt nit ñi gënal la sax sa intérêt yow waaw wa saayu fi xawaayijil abraar ak dox jëm ci ajooy ñu baax ñi waaw foo gis gu baax ajoom du taxaw ñépp ngay fajal seen ajo rawatina woy baax yi waaw nee na yii nag eh, du lu ko dab du yu ko jikko dab ay jikko yu mu judduwaale la waaw fitra la ci moom waaye ba mu matee ci yàlla sama boroom ubbi ko dégg nga ubbi nga gën a mëg a mëg ba pare gën a mët def ci moom ya mu def ci xeeti maarif waaw wuslatu ga mu am ci xadaraam ak ràññee gam ci am moo tax lu ne ci jikko yi rek eh, daf koy teg fa mu war a tege waaw koy teg fa mu war a tege koy teg fa mu war a tege ba mujj lépp di yàlla nekk ci yàlla ko mujj eh, dégg nga ñawam ak muusam dootul nekkati ñaw muus bu mel ni suñ yos yi waaye dafay dellu ci dégg gi mu dégg eh, yàlla ak dégg gi mu dégg li yàlla namm waaw bu ko defee anaatam dafay dellu ci E, xereñe gi mu xereñee jaamu yàlla waaw jaamu yàlla bu ko defee muñam dafay dellu ci noppi gi noppi ci suufu dogali yàlla yi waaw ak yenu gimu yenu e, dégg nga e, maanaam yenu ga muy dellu ci faj gi moo fajal ajo jaamu yàlla yi waaw bu ko defee njàmbaaram dellu ci kattanam ci diine dellu ci kattanam ci diine waaw kàttanam ci diine najdatuhu dafa dellu ci dimbaleem gi moo dimbale yoonu ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy woy jub ñooy woy jub waaw bu ko defee tabeem ak saxaa am dafay dafay dellu ci jaay gi mu jaay bakkanam ci yàlla waaw kaway yitteem dellu ci dagg gi mu dagg ci lépp lu dul yàlla jëm ci yàlla tabaraka wa taala futuwaam matal gi matal jëflante gi mu war a jëflante ak gi muy jëflante ak boromam tabaraka wa taala waaw waaw ah, ah kullun muyassarun lima xuliqa lahu te huwa alqutubul maktum waaw wal barzaxul maxtum waaw wal qutubul maktum wal barzaxul maxtum moo mm-hmm. tax wa kaana talqal wajhi da tabassumi fi wajhi man laqiyahu fi laqami waaw maa madda tuula dahri rijlahu ila alqiblati taadiman li rabbina al ajal mahamad da mosta tàllal tuula dahri giirug dundam rijlahu tànkam ila alqiblati jëm ja qibla ko taadiman ngir màggal li rabbina al ajal ngir màggal yàlla tabaraka wa taala mu màgg mi Cheikh na Tijaani radiallahu taala anhu tegginam ci yàlla ak màggalam yàlla tax na dundam yëpp mosta tàllal tànkam mu jublu qibla waaw maa basaqa tijaani wa huwa jaalisu fi masjidin fa maa lahu almuqaayisu musta tufli ci jàkk waaw am na ñoo xam ne fu leen tufli fekk ñu def ko Cheikh na Tijaani musta tufli nee na wa huwa jaalisun te fekk mi ngi toog fi masjidin fa maa lahu almuqaayisu Cheikh Tidiane daal amul morom radiallahu taala anhu amul koy qiyaas ak Cheikh Tidiane ba mu tolloog moom maanaam mbubu mi muy sol ci yàlla ak ci teggin ak ci mbaax mbu moomu koo ko solol mbubu moo ëpp ko moom rek la jot radiallahu taala an wala bihi yarfau sawtahu mata samiaa rafian nahaahu ya fata wala yarfau mosta yëgati sawtahu sawtahu baatam bi ci jàkka mata samia saa yu déggee rafian aji yëgati dégg nga euh, baatam nahaahu mu tere ko ya fata yow camsi waaw mhm. Cheikh Tidiane mosta yëgati kàddoom ci jàkk ah laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi waaw ah, te jàkk yi barabu yonantu sallallahu alayhi wa sallam te du seetaan it ku ko def waaw yutlabu taaratan min adduaai wa qaala lam adcu bila xafaai cilman bi anna ma bihi ixtaaru rabbi huwa al axsanu wal muxtaaru yutlabu def na sàkku ci moom taaratan léeg-léeg mi na duwaa yi ñaan léeg-léeg am ko ñaanal ma waqoola la maa doo mu ne ko déedéet du ma ñaan bilaa xafaaye ci lu nëbbu nag am lu mu nëbbu lu tax ilman ngir xam ngim xam bi annama bihi yaxtaaru rabbi li sama borom tabaraka wa taala tànn huwa ahsanu moo gën a rafet wal muxtaaru mooy luñ tànn waaw daal kon laaj ñaanal ma mu ñaanal la waaye léeg-léeg ñaanal ko yàlla xamal ko ne ko situation bii kat moo gën mu ne laa ñaan ah ñaan mu bañ nga foog ne loolu rek la daa def mu na mu ne laa ah, yamutoon foofu yad'u li gayrin aw li nafsihi yaqul ad'u walakin qalbuna ila alwakil yad'u daana ñaan li gayrin ñeel keneen aw li nafsihi wala ñeel boppam daan na ñaanal boppam yaqulu muy wax ad'u maa ngay ñaan de walakin wante qalbuna sama xol bii ila yi jëm na ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom rekk laa aj samay mbir te moom rek ko àttan maana maa ngay ñaan waaye terewut gërëm naa lu yàlla def waaw amaa ñaan nag parce que ñaan jaamu yàlla la amaa ñaan parce que yàlla moo ñu ñaan loo waaw waaye sama xol moom li yàlla bëgg bëgg li yàlla bëgg la bëgg hmm, te dana ko feeñal ci kanam waaw wa kaana yashhadu xuquuqa annaasi alayhi cheikhuna abul abbaasi yaqulu lam nuufi liman darayna xuquuqahu dahra wala stawfayna almuminu alladi yara alxuquqa alayhi laa li nafsihi taxqiqa wa kaana moom nekkoon na moom na wala na tijaani yashhadu du see di seede xuquuqa annaasi xaqi nit ñi alayhi ci moom wala danga naa wa kaana nekkoon na cheikhuna suñ sëriñ abul abbaas yashhadu xuquqa naasi di seede xaqi nit ñi ale yi ci moom waaw fu mu toll rek mi ngi gis ne moom moo ëwu nit ñi waay nit ñi ëwuñ ko he always saw that people owe he owed people maanaam fu mu toll mi ngi jàpp ne moom moo war a defal nit ñi lim leen defal lim leen war a defal defalut leen ko li mu seq ak ñoom wàccoowut ak moom waaye du gis mukk ne ñoom wàccoowuñu ak moom du gis ne sax yoral dañ ko àq maanaam moom toujours mi ngi xool devoir yi mu am envers les autres waaye du mos a xool droit yi mu am envers envers eux qaddasallahu sirra waaw am na koo xam ne nag fu mu toll droit am rek lay réclamer du xool devoir am waaw waaw ñu ne ñu diw sàngam daan na wax ne seetal euh, dégg nga li euh, maanaam bul xool li nga mën a li nga mën a li li sa réew mën a li la sa réew mën a defal xoolal li nga mën a defal sa réew ah ñun nag ñu jàngal loolu radiallahu anhu wa kaan yachhadu xuquqa annaasi alayhi cheikhuna abul abbas yaqul daf daa wax lam nuufi nun de mataluñ li man daray naa ñi ñeel ñiñ xam xuquqahu ñeel ki nga xam ne xam nañ ko xuquqa waay xaqam addëhra giiru dund wala stawfay naa mataluñ ko ñun daalu reconnaître nañ ne dégg nga xaq yi ñu yoreel jaam yi dégg nga mataluñ leen waaw mu ne nag almuminu alladi yara alxuquqa alayhi laa li nafsihi taxqiqa almuminu dëgg dëgg yara alladi mooy ki nga xam ne yara dafay gis alxuquqa xaq yi alayhi ci moom devoir yi rekk lay gis laa li nafsihi waaye du gis ay droit waaw du gis ko du gis ne moom la nit ñi war a defal dafay gis ni moo war a defal nit ñi du gis ne moom la nit ñi yoreel moom la nit ñi yoreel waaye dafay gis ne moo leen yoreel moo leen yoreel respect moo leen yoreel dimbale moo leen yoreel moo leen yoreel Cheikh na Tijaani noonu la daal dunde wala yuhibu alxawda fi l aqdaari subhaana rabbil aalami alqahaari wala di xuus fi l aqdaari ci dogalu yàlla yi subhaana rabbi sell ñeel na saa borom dogalu yàlla yi lii tax lii ak nangam lii ak déedéet waaw yem ci kudd ñu roof la ci mbas jaam noonu lay def yem ci kudd ñu roof la ci mbas waaye lu ne nga bëgg koo expliquer du sotti wa ma tamanna qattu min zawali ma huwa minha waqi'un fi lxaali mu ne wa ma qattu mukk min zawali ma huwa ci dañu la nga xam ne moom waaqi'un aji dégg nga tàbbi la fil ci jamono ja min haa ci dogalu yàlla amul dara luy xew ci dogalu yàlla loo xam ne Cheikh na Tijaan yi dana mébét mu dëñ lu tax mu ne yacuddu sayidi tijaani alxawda fi dalika lictiraad billahi iqtahi yacuddu dafay lim yacuddu dafa jàpp te xam na ne lim jàpp mooy dëgg Seydi Tijaani Cheikh Seydi Ahmed Tijaani ne alxawda xuus fii daalika ci loole mooy di xuus ci dogalu yàlla yi ak lu yàlla dogal ngay mébét mu deñ mu ne loolu moom daf ko jàppee dingat diingat yi ci yàlla iqtafi xencul toppal dégg nga jeexitu Mawlana Cheikh Tijaani radiyallahu anhu toppali tànkam waaw yàlla la ñaan loo ñaanal waaye xol bi moom na takkook yàlla ne gërëm ne lu yàlla def rek si Hajj Maalik dana wàcce beneen euh, ñaanam beneen qasidaam ne waraddina bilqada wala waraddini bilqada rabbi musabbi musabbirani ala balaayika ya rahmaanu ya allah ca wasilatul muna fi nazmi asmail al husna yàlla na nga def loo dogal mu neex ma waaw loo dogal mu neex la mu mel ni nag loolu daf la bëgg a jaxase mu ne ah ci alquran la ko teg de utlu wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu ala utlu jàngal laaya ja wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amrihim ab jullit góor mbaa jigéen bu fekkee ngëm yàlla mët na doo ko gis mukk su yàlla akub yonentam dogalee mbir ñuy dingat waaw waaw <clears throat> lu yàlla dogal ab yonentam wax ko rek la ndax yonentu du dogal yàlla ay dogal waaye lu dogal nag yonentu la koy xamal mu waxee waaw lu muy joxe it ci yonentu la koy jaare mooy joxe yonentoy séddale lépp nag ci lépp nag wa muslimul umuri lil wakili fa innahu yublagu bil mamuli jàppal règle bi wa muslimul umuri koo xam ne aji jébbal la mbiri lil wakili ñeel yàlla fa innahu naka kookee yubbu laxu deef na jotal ko bil mamuli mébét képp koo xam ne lu yàlla def neex na la sa mbir yépp jébbal nga ko yàlla jébbal nga leen yàlla xamal na yàlla lu tax sa yaakaar foo bëgg a yegg dana la fa yegg dana la la fa yóbbu mu ne kaana yaqulu almaalu maalu llahi fi waqti linfaaqi bila ishtibaahi kaana moolana tijaani radiallahu anhu nekkoon na yaqulu di wax ne almaalu alal ji maalu llahi alalu fi waqti linfaaqi ci jamono jamuy dundale saa yu daan dépensé xaalis xaalisam te foo ko fekk daf daan jox kenn gënu la tabe moolana tijaani soo ko xoolee mbaa bëti a li ngay joxe bari na soo ko xoolee bëti a suba doo ñàkk soo ko boo ko boo bëggee wax ne ah sëñ bi amal denc mu fàttali ne alal ji alalu yàlla du alalu Cheikh Tidiane al maalu maalullahi lay wax saa yu daan dafay wane ni du man maay joxe yàllaay joxe ndax alal ji du sama alal alalu yàlla dégg nga de lu tax mu ne qaala taala rabbuna wa anfiqu wa jalla rabbuna alkarimu almunfiqu ma fàttali laaye jële ca suratu alxadid wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii dundale leen ci li yàlla def leen ngeen di woy wuutu ko ca maanaam li leen yàlla def kuutaay dégg nga xaalis bi nga yore yàlla la ko jox pour nga joxeel ko ko waaye joxut la ko pour nga denc ko moo tax kaana yaqulul maalu maalullahi daa wax ne alal jàllalu yàlla fii waqti lin faax ci jamonoy dundale bi la shtibaay ci lul benn lënt ndax qaala wax na taala yàlla wax na ne eh, qaala taala qaala rabbuna taala mooy qaala taala rabbuna wa anfiqu ndax way wee tax sama borom wax na ne wa anfiqu na ngeen dundale mimma jaalakum ca la nga xam ne def na leen ko mustaxlafiina ngeen di ñuñ wuutal fii mhm. wa jalla màgg na rabbuna borom suñu alkarimu kay aji màgg almunfiq kay aji tedd almunfiqu ki nga xam ne moom rekk mooy dundale waaw moom rekk mooy dundale waaw dëgg-dëgg yàlla rek kay dundale mhm. ndax li nga yore mooma waaw ba moo la jox tawfiqu mën koo joxe it ba pare boo ko joxe moo la koy joxaat te te mbiram akat foofu yuxlifu ja waaw seetal seetal seetal tabeeg yàlla mhm. wa kaana yuxfi ma ixfaayi alsadaqaati saaxi daf daa nëbbu kulla ma ixfaayi gépp sarax yim daa joxe saaxi yow sama borom yow sama euh, àndandoo lil wafaayi ngir matal dégg nga diggante moog yàlla matal cellal gi ko war ci diggante moog boromam waaw buy joxe dafa daan nëbbu joxe mu mel ni nag boo ca yemee la lay wax ah la yem di alalu yàlla wala lisaanu xaalam mooy wax ne alal ji alalu yàlla wa nisbatu almadkuri lilladi nkatam ka nisbati nga booy seet li ma tudd ci Cheikh Tidiane nga comparé ko lilladi nkatam ci li nëbbu tudduma ko ka nisbati nuqtati lilbaxri alxidam mu ngi mel ni nga dem ca géej mbaambulaan ni mu bëree ndox nga dégg nga jël ca toq li ma tudd ci Cheikh Tidiane yëpp kat ab toq la rekk ci géeju mbàmbulaanu jikko yu màgg yu baax yu rafetu Mawlana Tijaani radiyallahu anhu laakin bi ma zakartuhu lkifaaya li kulli marin mubtagi lhidaaya laakin wante bi ma zakartuhu nekk na ci lima ma tudd alkifaayatuk doy li kulli mar in ñeel bépp waay li mar in ñeel bépp góor mbaa jigéen mu bu tëxil hidaayati koo xam ne aji sàkkuk njub la waaye kuy wut njub li ma la tuddal ci Mawlana yi doy na la pour nga roy waaw boo royee li ma la tuddal ci Cheikh Tidiane daa bokk ci ñi gën a baax waaye li la tuddal nag du dara ludul ab toq ci géej mbambulaanu Cheikh na Tidiane waaw bokk ci ñi gën a baax taxul nga mën a mel ni Cheikh Tidiane ndax moom mooy ki gën a baax radiallahu taala anhu waaye yow war nga fexe ba bokk ci ci gën a baax te li ma la tuddal nag doy na pour nga bokk ci gën a baax yal nañu yàlla boole ci ñi gën a baax len qad intahat nicmatu aafi ljaani walhamdulillahi ala imtinaani thumma salaatuhu maa assalaami ala imaami daaxili salaami wa alihi wa saxbihi al axraari al qaanitiina al muhliki al hujjaari qad intahat pare na mët na nicmatu aafil jaani téere bii ma tuddee xéwalu yàlla mi nga xam ne mooy baal aji tooñ yàlla nañu yàlla boole baal nga xam ne maa ngi ko bind di ci jàngale ñaar fukki leetar ak ñaar yu Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu bind taalibe mi walhamdulillahi sant ñal yàlla alam tinaani ci xéewal gi ma xéewal ba mu gannaaw ga nag jullik yàlla maa salaami ànd ak xéwalam ak muccalam ala imaami daaxili salaami yàll na nekk ci ilimaanu képp koo xam ne dugg na ci jàmm ci te mooy lislaam ak ñëpp ñoo xam danañ duggi ëllëg ca kërug jàmm ja muy daaru salaam di aljanna yal na ci yàlla boole wa ak ñooñam wa sahbihi ak saxaabaam ya al ahraar yi ñooy gor gor dëgg mooy ñaan doon ak yonantu ñi nga xam ne ñooy woy jaamu yàlla ca la ñem déedéet almuhlikil jaamu yàlla ga du jaamuy julli rek de waaye kàccoor yee taxawoon ne diine du taxaw ñoo leen alak almuhliki lu fujjaari waaw képp ku taxaw nara noot jaamu yàlla yi farata la ci jaamu yàlla bu nekk mu taxaw ca kanam kooku ne ko doo leen noot lum ko jaral mu jaral la ko yàlla rek tax nag te arju an yakuna gafira biha dunuba wal uyuba satira wala yàlla képp kat arjo moom laa yaakaar man alaaji malik an yakoona mu nekk xaafira di aji jéggale bihaa ci barkeb dégg nga jaani bihaa ci sababu bihaa ci liggéey bi nga xam ne dégg nga indil naa ko jaamu yàlla yi yàlla rek laay yaakaar mu baalee ma ci ay dunub ak wala uyuba moom rekk laa yaakaar ne ayib yi nga xam ne it eh, ci yàlla laa yaakaar mu nekk saatiran da aji suturaal ma leen yal nañu yàlla jéggal suñuy bàkkaar suturaal ñu ci suñuy ayib sutura nag sutura nag ñaar la yàlla suturaal la ba njombe yi ngay def kenn du ko gis ak yàlla suturaal la ba doo mën a def njombe ndax boo ko defee moom mu gis la te bëgguloom kenn gis la yàlla na yàlla suturaal ñu ba muñ ba duñ mën a def njombe ci barke Mawlana Rasul sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Seydi Ahmed Tijani radiallahu tabaraka wa taala anhu seen mbokk Mouhamed Sakho asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh قد